bismillahi rahmaani rahiimi barkeb borom tuuba wala falu nuuru darini bismil ilaahi jaam bu suufe mooy way xasiida gi bàmba dëxëñ mbootam yu rëy bismil ilaahi jaam bu suufe mooy way xasiida gi bàmba dëxëñ mbootam yu rëy bismil ilaahi jaam bu suufe mooy way xasiida gi bàmba dëxëñ mbootam yu rëy xasiida gi mu waye woon fa njaarim dëxëñ ci moom lu ma taxam te ma te yéem su ngeen ma dégloo tey ma dellu woo woote woy ko ca kaw te wax ci moom lu tuuti su ngeen ma dégloo tey ma dellu woote woy ko ca kaw te wax ci moom lu tuuti sag jublu mooy xasiida yi di yi daare ni mii di may murit luy tuuru sag jublu mooy xasiida gi di nooru daare ni mii di may murit luy tuuru sàll wu nekk dana yóbbu waayam ca bamba wii dafay ful waayam bamba ci def luy toll ni jaamuk mursalin ku weddi xooli ko ca biir déglooti leen bamba ci def luy toll ni jaamuk mursalin ku weddi xooli ko ca wa jal kitaabati ka kulli mursali yaa man wahabtali ujoora rusuli ñu yéemu daam dellu waxaat ne aw xaraf moo toll ni lub yonent yàlla mas a jëf ñu yéemu daam dellu waxaat ne aw xaraf moo toll ni lub yonent yàlla a jëf wali yahab kaw nii ka kulli mursali wa jal xurufi ka ka kulli mursali wa moom la ñu xam gu bàmba daa durus bu wér ci tàkkusaan wi sàll moo ko mat a wër moom la xam gu bàmba ma daa durus bu wér ci tàkkusaan wi sàll moo ko mat a wër amul li lor njariñi neem la feese amul geneen ibaada guñ koy peese bila azan wala laxan wala xaqat kama kafaytani bihi man intaqat mooy gën gi jaamu yàlla moo leen boole luñ mën a wax nóoroo ko ëpp doole wajal qaraatiisi bihi wa qalami xayra ibaadatin wa xayra sullami wajal madaihi lahu wa salawaat fawqal ibaadaati maan wa daawaat bëgg ak bara ridaa ca yàlla jàngal ma yow nuuru ta am ca fulla wajal bi jaahil azimi nazmi ala ridaaka yaa muzilal kazmi wajal bi jaahil azimi indaka akbara ridwanin wa inda jundika dafay taxañ doxum ñu soobu yoon wa ci diir bu gàtt yow nga jot ca lef wa dafay taxañ doxum ñu soobu yoon wa ci diir bu gàtt yow nga jot ca lef wa yaa man jàngalta salawaatin naamiya anni masaafata sulooki taawiya wa fii tilaawati tawayta lil عند ممر والديور وليا تي مسافات السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك جهاد bu nit masa jihaad ngir taxawal ku jàng nooru yi wanañ la ko defal jihaad bu nit masa jihaad ngir taxawal ku jàng nooru yi wanañ la ko defal yoolub jihaadu fi sabilillahi mi ngi ci biir nooru magiñ billahi waliya am daahi jaxalta li jihaad kulli mujahidin hadayta da jihaad nooru megum yonen alayhi aska xéewali yàlla yi ñu sant jàkka وجلبه نظمي دا سرورا لهو ومني يقبل البرورا بامبا وخون شيخ انت مون فغاوان دي كو سخال فو نيك ياو بغاوان بامبا وخون شيخ انت مون فغاوان de ko saxal foo nekk yow bagaawaan mu ne ko daa gudd mu ne ko kon wutal ko gàddu lu dundam sa kër mu koy saxal Cheikh Salihun mi mottalil li bàmbanaal daana ko takkoo bis bu set ba am ca xaal Cheikh Salihun mi mottalil li bàmbanaal ba am ca xaal ku bëgg a làkk cër saxal ci yër ko ku ko yorul sax mi yem ak ku yor ko ku bëgg a am kës fu saxal te di jàngu nóoru boole koog di màggal salli salaatan taksimul asraara li lil jinaani tam nangul asraara salli salaatan tatrudul guyuba li gayri zaati taksibul guyuba salli salaatan taksibul guyuba li gayri zaati taksibul guyuba salli salaatan tatrudul guyuba li xayri daati taksiful xuyóoba nuuroo ngi jolli fee azal ak kursi ma nga ñu wékk ke yee ca arsi war faa li arsi ka laadimi xatti yaa ma xaa maasa ani bil xaqi war faa li arsi ka walil kursi nat mi yahaada bismikal qudsi def na ca biira mootu kun ak fa yëkkoon diggante ñaari yi bayit la ko defoon def ca biiram mootu kun ak fa yëkkoon diggante ñaari yi bayit la ko defoon kafaani wal muqtadiru ma xaasihu min al anaa il qadaru nasaa lil barakatal muxtadiru wali janaabi lay sa yanxoo kadaru def na ca biir kas rajab akramani moo tàmbalee kitaaba bii mi ngi nii def na ca biir kas rajab akramani moo tàmbalee kitaaba rabbi mi ngi nii kitaaba rabbi innaka alkitaabu wa fiika qaala dalika alkitaabu ci yàlla ciy xasiida gi ka màgg moo rëyi mbottalii ma wax mooy dëgg ci yàlla ciy xasiida gi ka màgg moo rëyi mbottalii ma wax mooy dëgg ci mujj sëñ bu mag bi fii ci saahir la ay mbir lu mujj ñëw ca mbamba mooy raw la wayoon looloo waral mu raw xasiida yam wayoon maa salaamin li yuqallidu raxat wa am si yun siini bi yow mi wa bixat maa salaamin li yuqallidu raxat wa am si yun siini bi yaw mi wa bixat daa wax a wax ba mujj wax ne wax yi ci yaw du jeex déglul ma wax bayit yi daa wax wax ba mujj wax ne wax yi ci yaw du jeex déglul ma wax bayit yi xaw li yëf ikal yow ma lastu aussi sanaa a baaxin kaana lii lay sa sanaa ak siwaaka yuusi yaa qaa'idan liyal munaa yaa muusi naa tëj te ñaan kuy wax ci yow du jeexal loo wax a wax bàyyi leneen lu xaajul naa tëj tañaan ñaan kuy wax ci yow du jeexal loo wax a wax bàyyi leneen lu xaajul yàlla na ñu sax ci yow bu wér ngir bàmba ci barke kii la fonk lool ngir bàmba ki lay takkoo te lay bind ak di bindulu sëriñ alxaaji may ko lum di fàggulu ki lay takkoo te lay bind ak di bindulu sëriñ alxaaji may ko lum di fàggulu ki lay takkoo te lay bind ak di bindulu sëriñ alxaaji may ko lum di fàggulu bind yooni yoon ba léegi sëñ góor a jóob fulal ko yow sa fay gi moo ma ci gindi man lamin ma way la yal na ñu am mboolem ngërëm fa yàlla moo ma ci gindi man lamin ma way la yal na ñu am mboolem ngërëm fa yàlla wakun li yëddëra wakun maa ngi wakun li saayi xan xooqa maraami ya bikun wajaal bi jeeyi xayaati saafiya laka bi maal ujoori daafiya subhaana na rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin